barkeb Serigne Bethio jërëjëfati Serigne Bethio soxna ay Aida Saliou Thioune dëgg dëgg jëmmi Serigne Bethio yàlla na fi yàgg te wér màggal 2024 ak sunu sang bi soxna Aida Saliou Thioune fii ci Mbour Madinatu Salaam kërug cofeel yéen a ngi jàkkaarloog sang bu tedd bi soxna Aida Saliou Thioune dëgg dëgg jëmmi Serigne Bethio barke sëriñ Bethio jërëjëf Thioune ñu ngi lay saa sang tedd bi soxna Aida Saliou Thioune dëgg dëgg jëmmi Serigne sang bu tedd bi yàlla na nga fi yàgg te wér soxna Aida Saliou Thioune dëgg-dëgg jëmmi Serigne Béthio ngeen jàkkaarlool